asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiite ci bi sëñ Abdou Lakram di ko sant moom itam di ko gërëm ci lii mu def te defal na ko ñun ñëpp muy woote taalibe sëñ Tuubaa yëpp teew ngir fàttaliku sëñ Abdou Lahad ngir ñaanal sëñ Abdou Lahad waaye ngir tëbb ci barke bi nga xam nag moo tax muy woote bis bi moo tax ñun ñëpp ñu wuy si ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa ñu dajeeg moom di ko sant ci taxawaayam fii di ko sant ci taxawaayam fii ci sowu jant di ko sant ci fii ci sowu jant wax ji baax di ko sant ci taxawaayam fii ci sowu jant ngir pas-pasam ak yitteem akuk yëgam akuk jotaleem ci taalibe yépp ci jullit yépp nga xam ne amul xaj ak seen xam ni Sëriñ Tubaa dafa nekkaloon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di xëy ci tool yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ca gont doon jëwlinam sëñ Abdou Lahad dafa amoon lu wax ne ku sëñ tubaab jur amub taalibe waaye comme jur sa baay itam amub taalibe foo nekk tamel na nga mel mel yilif ñëpp kon bu ñu la nangalee nekk nga nekk fii tamel na nga war a mel rek moo tax ndax mbooloo mu tul nii jaar leen ci benn bunt jafe na buntu yëg ak bunt teraanga rek moo koy maye kon yëg gi nga yëg nit ak teral gi nga teral nit ñi ak ormal gi nga ormal nit ñi moo la may lii li ma li fi indi mett na lool naqari na lool jafe na lool ma boole wala nag ñett ñaar na wàccutul liggéey maa ngi ñaan saa borom xaare àjjana te njaboot gi fi bàyyi mu teg ñoom loxo muy sëñ Abdou Lahad Mbaye nag kon sëñ kàbb booba ak sëñ Moussa Dieye ci Daaru Ja ak sama nijaay bopp yi daam ngay daam ngay sama xarit la sama sama sama mbokk la sama wëlëre waaye taalibi la dafa matal dafa matal xarit gi matal bokk gi matal taalibi gi 1988 88 ba jëkkee ñëw fii la yëkkat doom jébbal ma ko muy bàyyi bada wëlbati ko tuddewaat ma doom am sëtu wëlbati ko fekkaat ma njàpp ndal te booba mett na lool booba sëñ Sadio nga fa moom ma jiitu ci kër ga booba daa fekk sëñ bi yónni ma ñetti yëg yooyu ak ñetti yitte yooyu nag amel naa ko jant amel naa ko gërëm rax ci loolu nag ma boole ko sëñ Abdou Karam ko jàppee ba tey bàyyiwul dafay jëm gën a jëm kanam rek loolu nag nopp noppalu waaye ba léegi dafa mel ni ndaw waaye nag dama koy sant di ko ñaanal ci barki sëñ Tuubaa waaye nag ku ñu si Abdou Fall muy sëb sëy mooy sa réertif nii rek nga mën a mel nangu ndigal ñeme ndigal kon nag lépp lu ndigal di may yàlla na la fekk fa nga nekk barki sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad bi mu juñ léegi wuru mën a wax benn baat sax ndax li ma waroon wax lépp lenn li sëñ Abdou Karim kan wax na ko lenn li si Abdou Karim damay def taaliq seen i waxtaan rek sëñ dafa wax ni sëñ Abdou dafa mel ni xamoon na ni da wut sëñ Tuubaa xamoon na ko waaw sëñ Tuubaa ko waxoon bi mu nekk tut tànk li nga doon nettali sànq bi muy nekk tut tànk dafa dem ci sëriñ ba di ko siyaare ne bi ñu nekkoon mu permis mu jàpp ci troisième laa bi nii Cheikh Ibrahima Fall dafa yox ni ko foofu la de foofu la de sëñ ni bu ci àggalee li ma génne woon dana ko dana ko àggale ba def naal yi boppam li ma naal dana ko àggale àggal naal yi boppam sëñ Ibrahima jaxas neen ànd moom ci sëñ Touba dégg sëñ Touba di ko wax naan ko da dem ba wutuma doon ma saay rek bàttin waaye su boobaa lii nii laa bëgg nga defal ne ma ko nii nii laa bëgg nga defal kon xam xam xamoon na ko mas naa yónni sëñ Abdoulaye Jaxate sëñ mu Mustafa yàgg na ci suba gi booba sëñ bi nit ñi dañuy bari keroog suba gi mu koy topp di ko topp ba dem ca ba nga xam ne bu fii mu toog moom bu jeexee kër gi jeex na fatu ji rek a ci des mu fob mbubam mu téye laxas loxoom ci mbubu sëñ Mudu Mustafa mu dëgër bi sëñ Mudu Mustafa jógee bëgg a dem mënta a jóg mu toogaat mu ne ko lan la ma taxaw ne ko lan mu ne ki ma yónni de fii nga toog dana fi toog te ëllëg moo ko sa njaboot fi nekk kon nag mat naa bàyyi xel mu ne ko la wax mu ne ko sëñ Tuubaa la ko dégg sëñ Moud Moussa ca mat gi mu ne ko ñii duñu samay doomi sëñ samay sëñ lañ toogaat ci suuf kon sëñ Abdou Karim sëñ Baara yéen samay sëñ ngeen ndax man doomi sëñ Abdou laa waaye yéen doomi sëñ Tuubaa ngeen kon yéen samay sëñ sëñ Abdou mi ñuy waxtaane nag te di ko màggal jamono la joon rek mu ñëw fii di ko réparé ko delluwaat te jamono ji ba mu ñëw nim ni mu lajoon ni ko gën a ñëw na amaat nañ ci ndax jamono moo yàqu dañoo nekk ci aaxiru zaman mu jug jamono nag mag ñi ay ndaw la doon ndaw ñi doon ay seytaane yàlla ñu ci yàlla musal boo gisee yu ñaaw yi ñuy wax ci média yi ak jëf gi ñu koy jëf nga xam ne jëf yi bàyyi ma rek la kon day mel ni yeesal diine nag la waroon jot waaye nag gannaaw sallallahu alayhi wa sallam dañoo jàngal alxuraan nekk di téere nañ koy nafar rek di ko fàttali rek fàttali nag fa sàkk ina sikra tan fawul moom i fasakin fa inna fàtte sikkira say zakru ma yax sa fàtte bu ñu koy wax la muy jëriñ mooy fàttale ca waxtu wax ba mu jotee soo nekkee ba mu paase nga sax ngay fàttale amuñ jëriñ waaye fa mu jotee nga koy fàtte fii mu nag dafa jot li ñuy mën a musal nag mooy tënku ci mu mustaqim li ñuy mën a musal mooy tënku ci diine téye sunu ngor sàmm sunu taalibe lépp luñ am sant ko ngir sañ sant sëñ Tuubaa mi ñu ko jox ngir jëmam ji lépp lu ñu ñàkk muñ ko ngir jëmam ji te xam ne nit ñett doom wala am boppam ay bokkam ak jëfam ku man manal sa bopp ku dee say bokk mënal la ku tële say bokk mënal la sa jëf mënal la kon suñ jëf yépp nay nay nay ak dëgg kum jub rek li ñii di woote ñii fi toog nii nguur gi fi toog di woote jub ak jubal ak jubanti loolu fi indi woon sëñ Tuubaa moo fi indi woon nit ñu baax ñëpp ku julli ko ne ak jub nga ñaan ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin ñu ngi koy ñaan waaye nag yéenee jëmbat garab taxut am ker yéenee jëmbat garab taxut am ker da ngay jëmbat tey roose bu yàggee nga am ker yéene am te dëggal naam yéene ëpp koy jëf wax nañ ko bu baax waaye nag yéene jëmbat garab topp tam da ba noppi jëmbat bu defee garab nag na ko saxal dong moo koy màggal ndox ma ko saxal moo koy roose màggal bu nu yàlla diggalee yonent bi diggal ñu sëñ Tuubaa ñu fedd loola ñu bàyyi seen i diggal ne ci leneen doon màgg mukk dañu dellu gannaaw wal iyaasu billaah te mujjee possible bi dara jëru ko nag te mi ngi nuy bëgg dal ndax alhaakumu takaasur jooju li nekk alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir jëkkante alal rek wut alal rek ba kañ ba kañ de ba dem ci biir bàmmeel àdduna toggob dañ la kenn du ñoroon ñu sóoroon démb ñu sóor bëkk démb ñu sóor kenn du ñor koñ nañ dooni gor nañ dooni julit nañ dooni taalibe ku nag bu jaar ci yoon wa sa baay jaar ëkk ko jëm dëgg ko jëmoon dëgg da ngay sant yàlla dañuy yemal yàlla na nga dund ak yàlla na nga def baax na ak bon te bañ a wut taggu nit ñi amul njariñ wala jariñ tus yonente bi lañ ko wax ab jibar la wax nañ ko de ab dof la leen wax nañ ko day dox ci marché di lekk ci marché nit la sëñ Tuubaa lañ ko wax loolu dooy maamu and si dof na seen ndof googee moo defar lépp moo tabax àdduna tabax àllaaxira kon noonu jaam jaamaat yi dama sëñ Saliou wax nee na ma am sutu nit du la neex cent pour cent cent pour cent te nit ku ne am na fukki jikko juróom-ñeent fukki jikko fukki jikko seetlu benn ba nga ca mën a ànd ak rek nga ànd jàng yës bu ci sa yoon nekk te li leen naqari li leen naqari ci mujj da ngay li leen naqari ci nit ki da nga koy muñee la neex ci moom ni ma am surtout ma ni ko Mbàkke mu ne bëgguma ci yow nga topp ci gannaaw di wax damaa bëgg nga ne ci kanam ñuy wax ci yow waaye nag bul xa bul faale mukk yu ko su tànk yu dem kon sëñ Tuubaa rek fi nekk dëgg ku jub dong la jàngal ku réer yaa réer sa bopp waaye ku bëgg gindi ko itam gindi ko la ma waxoon nag kon yéen ndaw ñi ma digal leen fàttali leen ndax jub rek moo war moo leen war ndax su ngeen jubee yéen samay doom su ngeen jubee da ngeen da ngay noppal seen kilifa yi leen war a war jubbanti su ngeen jubee dangeen ngeen noppal kilifa yi leen war a jub su ngeen juboo itam noppal seen bopp noppal taalibe yi kon dëgg genn la njub genn la yoon wu jub itam benn wa innaha sa sirati mustaqim fatabi wala tatabi subul aw ñal ci topp mu yóbbu la foo xamul bàmba ji dañ koo kulóore loo xam ne du dara bàmba ji du mbooloo bàmba ji du xaalis bàmba ji du sañse bàmba ji du oto bàmba du soxna yu rafet gëm sëñ bi léegi li kenn nangootul yar sa doom doo ko jox ku la ko yaral da nga koy jàngali tubaab wala nga jàngal ko ak ut ak ndax jàng ñaar la jàng diine fi nekk ak meneen jàng ni ut xaalis te xaalis waaw woykat ba wax na ko sax ñu ko waxee yaa taaliba rizq fi dunya bi quwwatihi taduuru min baladin fiha ila baladin at'abta nafsaka fi ma laysa tudrikuhu wa daqa umruka fi amin wa fi nakad law tirta bayna as-samaa wal ardi mujtahida fi shurbati al-maa'i xayri rizqi lam tajid ixsar anaka fa inna rizqa munqasam yati ilayka walaw fi juhati asad yow mi war ci avion yi di tourner fu ne nga dem fa ngir wut ab dërëm bu ko def noppalul wërsëg dañ koo séddale bu yàgg yàgg yàgg yàgg bu ne woon jëw gaynde da nga ci jot loo xam ne boo tëddee mu fekk la fa nga ne jërul jóg di ko dawi te yàlla séddale na wërsëg yëpp su fu soxbaan te ni ne wërsëg nes fu soxbaan bu ñëwee muy bisu màggal bu dara bi ñuy jàng yaasi yooyu loolu tax ndax ci lañuy jàng ci lañuy séddale wërsëg yi ak ak ak ak ak ñi war a dund ba jëm déwén moo tax ñuy jàng yow ngir ñaan sun boroom doy la la wul ak bokk ci ndaw ñi kon mbokk yi nañ bàyyi xel dee day ñëw te day bette nañ moytu fen ak rabaaj ak jëw day lore lu la fen may wax may soo waxoon dëgg am du këpp te tabaxu fen nag lu mu yàgg yàgg day kawe day daanu waa in xalaa yooyu sëñ Tuubaa wax sax moo tax mu kawee tuuti waaye fa saaxiqul kenn muy dara te lu mu la may lu ne fa ko gën a soxlaa la koy nangoo kon fen amul njëriñ nañ mooy tëndiku doonay jullit doonay tali ko defee maa ngi lay nuyu lu bari di la sant di la gërëm dañ sa xarit sa xarita sëñ la këram xaritam nga kon sama xarit la nuyu itam sama bokki xaadir rek bokki tiyaan yi fi nekk sama mbokkum tiyaan mais jàng na fi njàng mu neex sallallahu alayhi wa sallam yuroo ko na dagg daa gàtt da <coughs> taali bi sëñ jaraame bi dafa gàtt waaw dafa neex waaw neex bi dem li sëñ Abdou Karim doon ko yóbbante ñàkkul lu ma ci am xanaa ndax nee na nee na daa bëgg ñuy sistir bi ñu doxalaat ko di àtte dëgg sëñ Abdou Karim loolu nga wax de xanaa day mel ni ñoom ñoom ñoom ñoom ñu ngi ci dañoo bëgg bale ñu fi nekk ñi fi nekkoon te jubuñu ndax dafa am ñoo xam ne dañoo dañoo dañoo jalgati réew mi lekk xaalisu réew mi te ñu war leen a àtte te ñu leen war leen àtte nag bu jaxasoo ñoom bu ñu yoree alal comme rek duñu àtte duñu àtte dëgg ñu bëgg dàq ñoo ba mu set andi ñoo xam ne dañ àtte dëgg loolu la Sonko nekk sëñ bi ko waxoon léegi ni nga waxoon léegi nag sëñ Tuubaa dëgg kum jub la wootoon ñii boo gisee nit ñi bëgg leen dañoo woote dëgg ko njub dong suñ ko bàyyi nit ñi ba leen li nga li nga amoon ba ba mel ni soo ko soo ko bàyyi te jig na lañu wax hmm, waaw ñi fi newoon ñëpp ay ay kilifa ak i buur dëgg ko njub lañ bëggoon waaye dañ ko woon amuñu ci benn rincé najaax amuñu amuñu najaax sëñ Tuubaa moo ko xeex nag dem des ci ci bar dañ rey buur yi fi yëkk dañ leen rey sëñ tubaa nag dafa dem ba noppi am ko dellusi nag soxlawu àdduna soxlawu ko kon nag ku ñëw woote dëgg ak jub danga am ñu jub ñi da am ñu baax ñi te dëgg nag sëñ Abdou Lahad nee dafa sew ba mel ni cënkoor ñaas cinkóor cinkóor cinkóor waaw waaye nag da nga ci jàpp lu yàgg-yàgg du dagg te ko bëgg dëgg fekk la ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu